Bargny gi géej gi yóbbu na lépp lépp lépp te nit ñi amuñu doole joo xamante ne mën nañoo jënd kër wala ñuy tabax kër wala ñuy luye ji su ngeen gisee xale yu bari di màngaan parce que cause boobu moo tax ndax xale dafay nekk ci kër gi yaayam nekk fi papaam nekk fi jabaram nekk fi ay doomam nekk fi ñu nekk ci benn appartement loolu nag ku ne xam na ne dafa metti kon bu ñu tasee ak bi nga xamante ne Omart wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla di dolli li ñu santoon yàlla ndax dañoo sonnoon nag te xalaatuñu woon ne lii dina am moo tax ñoom dañu naan est-ce que lii dëgg la est-ce que lii dëgg la ma ne leen dëgg la man bu dul wonteeg dëgg kenn xamuma si caaxaan te Bargny tey jii wax dëgg yàlla man de bu ma tëddee damay nelaw ndax lii rek laa doon refee am teraanga rek ba yónnee ko Bargny xanaa di wax ne ñu ngi dolli sant yàlla di sant euh, euh, ONG bi di wax ne daal na jëm ca kanam pour dafa benn politique boo xam ne euh, euh, bi jëmul ci loyer bi euh, ñu teg ko Sénégal politique boobu ñu jëmul antu réussirul ndax from kër yi bañ nañu wàññi kër léegi ñu bëri njaboot yu bëri di dem ñu leen di génne diggante uc ak police ak tribunal léegi nag ONG bi comme que en 2000 kon suñu premier plan quinquennal bi nga xam ne 2000 ba 2005 la. Euh, ONG bi banque la njëkk a teg à Pikine di financer 500 millions par année logements sociaux mooy li nga xam ne bu ko nit ki amee daanaka li des su ko ñafee tuuti rek réussir àddunaam